équipe mooy yor lépp ci lu mu mënta doon équipe lañ fa soxla ba ñuy gouverner équipe lañu soxla bu ñu amul équipe bu baax du ñu dem ki nga xawee ne moom yàlla dogal mu jiitu ñépp am na lu ko yàlla may mu am loo sañ-sañ boo xam ne moo ko am waaye yonoon bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon moo gënoon ñépp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 loolu moo indi woon coow li fi xewoon ci jumaa ji dama laaj xale yi ne leen korite bii ñëw dafa am lu ma xelaat te bu ma ko laan def yéen laa ciy laaj ngeen waxoon seen xelaat ba pare ñu ma lan la ma ne leen jumaay Tiwaawan waa Tiwaawan moomuñu ko ñoo ñoo ma ko bokk ba nal masaajida lillah yàlla moom jàkk yi kon ñun dama am xelaat xelaat bi mooy lan dama bëgg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 nañu fexe ñun kilifa yi ñu yaraat suñuy doom doomu jullit dañ koy teel a xiirtal ci julli doomu jullit dañ koy teel a xiirtal ci julli salawaatul xams moom la ñu bëgg ñu teel leen koy yare